jàpp naa ne ñi financé teen bi suñu gisee lii ñoom dinañ gën a kontaan ànd ak fecc yi macha allah xam naa nañ kontaan bu baax a baax parce que day wane ne lii leen jox maanaam jël ngeen ko ak seen ñaari loxo loolu am na solo lool. ñoom ñu ko fi def seen jublaay moo nekkoon rek defal leen teen pour yombal leen am ndox ndox moo xam ne ndox moo leen di jëriñoo la loolu moo tax ñu jox ñu xaalis ñu xool village boo xam ne soxla nañ ko ñu defal leen ko alhamdulilah teen bi pare na am na ndox moo tax tey ñu mën a ñëw inauguré ko. inauguration bi pour lan la mooy pour wan leen ñoom ñi ko joxe woon ne leen ah seen teen ba ngeen financé de mi ngi nii pare na. gan ñi ñëw ba fii dalal nañ leen di leen gërëm di leen sant ndox mi ngeen ñu indi segam yéen am mbégte saka ñun mi fi fekk si ndax ñun ñàkk ndox bi ñun la gënoon a sonal daanaka duñ doon nelaw guddi dañ doon wóor di jënd paan fukki dërëm ko jëndee nga yene ko fa nga ko jëndee indi ko ba fii te yaa ko jënd ca teen ba daanaka defoon na daanaka kilomètre nga yéene ko fa ñëw te boole kook sa doom soo bëggee bàcc lay taay dangay fanaan ci teen yi ba bër set te loolu yëpp daanaka yàlla dindi na ko fi yàlla ak yéen fi nekk nii teen bi dañ ciy root kontaan ci ndox mi neex ba suñuy fóot ba satal root yoon yóbbu ci suñu kër yi kon nag yéen ñi mënuñu leen a fay li tax ñoom ñu def ko fi tiyaa boobu yal nañ ko yàlla yokkal ay xiiwal xiiwal xiiwal sant nañ leen gërëm leen waa coom ñëpp a ngi leen di sant sen liggéey rafet na gërëm nañ leen borom dëkk bi sawar na ci kontaan na ci ndax ku toog sa dëkk ba indi la teen ne la seen waa dëkk ko moom bégte rek la ci am kon nag gërëm nañ leen sant leen yokku leen a sant yéen yéen ñi nga xam yéen ñi ngeen a xam ne njëriñu dëkk yi rek moo leen tax a jóg waaw ndax lii ngeen def fii du ñu ne waa coom bi rek ngeen ko jox ay dëkk-dëkk la kon lii ngeen def nii xamu leen di ngeen def sax da ngeen ko defal ñëpp defal ko senegal yëpp waaw ndax bëggoon nañ ko mënuñu koo am ñu toog ba ngeen ànduñu ko kon yen dañ leen di ñaanal rek li ngeen bugg ci seen liggéey bi yal na yokku yal na yokku ña nga xam ne it ñoo ñoo ko ñoom ngeen ko seqal ndax yéen a leen may doole mënoon mënoon lañ na proposé leneen mbaa ñu ne leen dem leen ci dëkk yi ngeen ne amuñu jot mais yen da ngeen a ànd ak ñoom xam ne lii njëriñu réew mi la waaw ndax da ngeen a bëgg a jàppale dëkku kaw yi rek waaw ndax suñ njëriñ la ñun ñëpp ndax séeréer dafa ne ki la may teen ak ki la may tool ak ki la tudde doom kooku mu wax dëgg yàlla amatoo payam kon yéen da ngeen a bokk ci ñooñu wax dëgg yàlla ñun moom kontaan rek lañ ci am waaw liggéey bi ngeen liggéey fii am na solo lool te gis nañ ko te rafetlu nañ ko bu baax a baax ñun ñaan borom bi subhaanahu wa taala yar na leen yàlla fay bu baax a baax ndax ñi fi naan ñëpp euh, dëkkuñ fii ci biir dëkk bi doomu aadama fu munti jógee mën naa mar jaar teen naan loolu jaar naa sant yàlla bu baax kon nag ñi ci taxaw ñëpp yal na leen yàlla fay yàlla yàlla betee leen xiwal teen bi rafetlu nañ ko bu baax a baax sant nañ bu baax gërëm nañ leen Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité le déplacement aujourd'hui dans le village de Tchombi, dans, la région de, de Fatick, pour procéder euh, à l'inauguration officielle de ce, de ce puits. Alhamdulillah, comme vous le voir, le puits est arrivé à terme. Donc l'eau est sortie, elle est bonne. Donc le projet abouti. par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons Allah subhanahu ta'ala de récompenser tous les membres de ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce puits-là soit pour vous une source de hasanat et que ce soit inscrit dans votre balance de bonnes œuvres. Nous espérons, Inch'Allah, comme on le dit à travers les vidéos, que nous, nous allons continuer ensemble cette aventure. Je suis 5 euros et l'association SACU Action pour l'Espoir qui travaille ensemble, main dans la main, pour venir en aide les populations du dans d'autres contrées, uniquement pour rechercher Euh, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres aventures, d'autres projets. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.